Euh, di wax wàllum accointance euh, familiale si wàllum nomination Mame Diop bi di wax aussi mbirum troisième mandat moo tax euh, kii di président Macky Sall aussi tabut ko voilà mu mel ni comme ça tout l'air aussi xam nga c'est juste un rappel rek peut-être ma dellu si waat si uh-huh. le président Mame Diop wax naa ko tout à l'heure en 2009 bi président lancé parti bi en 2008 uh-huh. décembre kon presque ñu ngi 2009 uh-huh. bi biir Waalo le Richard Toll le Dagana je pense que c'était Mame mam moom moo ko moom moo ko accueillir foofu noonu mhm. bu loolu jàllee 2012 mu jël ko def ko député investir ko ci liste députation yi 2017 mhm. mu investir ko ci liste députation yi 2022 mu investiraat ko ci liste députation yi mais entre temps daf ko jëloon mu def ko DG DG SAPCO def na fa deux ans maximum je pense bu dee def na fa deux ans mhm. en 2014 Mame Diop dem élection euh, locale mu gagné commune am waxoon naa ko dama koy waxaat répétition du du bëri wax. Mhm. mais juste pour que nit ñi gën a comprendre. deux mille vingt deux mu demaat élection au moment où opposition bi di yuuxu naan gagné nañ te soixante onze commune rek la am su cinq cent cinquante sept. xam nga loolu différence boobu ni mu bëriwee dafa sax yàgg. mais Mame Diop dafa gagné localité muy Richard Toll muy deuxième mandat. mais ils ont raison ils mais ont attendez, gagné les grandes villes. su ñu ñëwee si mbirum jàng da nga wax tout à l'heure dama ko wax wax alal wax base. yaakaar naa ne xaw ma fortune am ndax géré wu ma ko xaw ma xaw ma daraam waaye li ma mun a xam ci moom mooy am na base bi maanaam la légitimité politique. mais aussi xam-xam bi jàpp naa ne am na ko parce que les docteurs en pharmacie. kon yaakaar naa ne ñaar yooyu noonu. ab koo xam ni sa bopp dara newu ci doo dem ba nekk ab docteur waaye koo xam ni tamit amoo légitimité fa nga dëkk doo nekk ñaari yoon euh, maire. député sax mën nañ la investir nga ñëw rek jàll comme sama genre mais nga nekk maire il va falloir que nga liggéey ba pare nga nekkaat ko da ngay liggéey ñu doog laa falaat kon yaakaar naa ne excusez-moi rek troisième mandat bi nag man daf may xaw a jaaxal sénégalais yi troisième mandat troisième mandat man de sérieusement ah, mi moo ko indiwaat ne nee na loolu moo tax président def ko parce que moom euh, wax na ko fas amul droit def daf ko ko wax moom si biir ba léegi rek li ngay wax lépp ñoom ñaar rek la xam nga man damaa sobul nag ba pare tamit damaa bëgg maanu tuuti ak maanu ñu ma yare dama bëgg di ko nekkee fu ma nekk pour ma am paix de paix intérieure mm. dama bëgg di dalal sama xel bañ a sonnal sama bopp bi ci loo xam ne maîtriser wu ma ko xaw ma ko mm-hmm. fekkewu ma ko mm-hmm. comme ñoom ñaar ñoo ko waxoon loolu ñoom ñaar la mais man de li ma mën a wax personnellement mooy le président ma Sall mm-hmm. su nekkee conseil constitutionnel balaa ñuy egg conseil constitutionnel la président ma Sall moom ci boppam bu nee man damaa bëgg def deuxième quinquennat mu déposé dossier de candidature am bu ko ko conseil constitutionnel valide le man Mame Gueye Diop maa njëkk wàcc dem di porte à pour que le président Macky Sall nekkaat président de la République. ah oui et sa parole donnée. non loolu lijjanti wu ma ko de man li ma lijjanti laa wax man. ah oui dama ni moom su bëggee moom laa wax su bëggee ba jël dossier wam yóbbu ko conseil constitutionnel nii dem sa voici mon dossier de candidature waa conseil constitutionnel examiné ni c'est validé comme nañ ko defalee woon président Ablaye Wade. ma ni man Mame Gueye Diop jour bu résultat yooyu génnee maa njëkk a wàcc si base bi qui sera le prochain président du Sénégal loolu yàllaa ka xam. mais jëntiwuma ko. mais honorable li ngay wax nii c'est tellement grave. grave pour yow le président Macky Sall amul lenn lu extraordinaire à maintes reprises. média dégguma ko mais. ah musuma ko dégg. chaque jour ma dégg nit ñi di wax mais musuma ko dégg ci gémmiñam mosoo ko dégg mosuma ko dégg mu ne amul droit amaat euh, mosuma ko dégg waaw loolu moom kenn mënu ci dara mosu non sérieux non mosuma ko dégg loolu kenn mënu ci dara maintenant bis ku gis jant baa ngi nii nga ne yàlla mi ñu tiim xam ne ni du question gis jant bi mosuma ko dégg mosuma dégg président Macky Sall maintenant xam nga Macky Sall fu mu ko envoyé ma ko mais xam nga lu tax lan moo tax ñun Sénégal dina metti lool pour Sénégal. gën a jëm kanam xamul daal. mais est-ce que euh, loolu. boo ko ça fait ça fait loolu est-ce que boo. si je me trompe ça fait trois ans dina am président Macky Sall buñ ko valider les euh, troisième mandat da ngay dem def. Euh, deuxième quinquennat euh, troisième mandat am day def da ngay dem. deuxième quinquennat porte à porte est-ce que loolu nekkul ça une insulte pour ces morts yi xam ne mun nañu wax si mu événement 23 juin yi on se rappelle très bien. le président de la République Macky Sall. 23 si acteurs yi nga xam ne. 23 juin dafa mois de mars 2021 amul 14 mois dañ koy rappeler dafa jëloon balaa ñuy euh, rappeler wu les morts de deux mille mooy Abdoulaye Wade par rapport ak li nga xam ne mooy euh, troisième mandat loolu est-ce que du insulte aussi. njàpp avant de se rappeler des morts de 2011. ça n'a rien à gën a jege. ça n'a rien à a jege. les contextes n'étaient même pas pareils. voilà mais contexte bii nag. Uh-huh. xanaa bii moo gën a bañ a nekk pareil. Uh-huh. bi nga xam ni la constitution la constitution a été revue. le mandat la durée du mandat été de sept le président Macky Sall yéene la amoon. foofu laa lay waxaate encore une fois que ni ñun Sénégal jullit ñi dañoo am seen Coran. chose qu'il n'a pas respecté. baal ma rek ma ñëw catholique yi am seen Bible mais ñun Sénégal lii suñu Bible ak suñu Coran mooy suñu constitution président Macky Sall bu fi jëlee ay engagement loolu moom la mais li nga xam ne moom la constitution de ah ok waa léegi si c'était le contraire nag par exemple président Macky Sall. moom su fekkoon ni dafa bëgg def deux mandats de sept kese bu doon ni nguur rek moo ko ñor du fi indi ay xuloo walla ay xeex li ngeen di xalaat noonu di di di tenter ay troisième candidature kon day bàyyi ñaari mandat de sept ans am rek kooku du dem ba deux mille vingt six walla déet ñaata moo manqué si ba trois ans moo ci manqué pour ñu egg deux mille vingt neuf kon encore une fois xam nga li président Macky Sall jël engagement ngeen koy wër di ko wax yéen ñi ko yëg dégg ko. te fekkee ko man mi ko yëgul yëguma ko fekkew ma ko dégguma ko lii sama lii sama soubassement c'est la constitution du Sénégal et que constitution Sénégal boobu noonu décision bu mu mën a jël su invalider la candidature du président Macky Sall je vous à ça su valider la candidature du président Macky Sall man je serai la première militante du président buy wàcc ci base bi maintenant qui sera le prochain président loolu yàllaa ko xam mais lu ñu warloo ak moom mooy suñu engagement bi ñu am à ses côtés amul dara lu ko mën a fayir. tout à fait euh, nañu génn si assemblée nationale wax euh, par rapport ak li nga xam ne mooy euh, tabb bi aussi nga xam ne def nañ ko ci kaw Amadou Ba ak nouveau gouvernement bi nga xam ne le président de la République Macky Sall teg ko on a vu aussi des sorties des entrées ak ñi nga xam sax mun nañu wax ne dañoo changer ay poste rek ñu indi ñu desaat si biir gouvernement bi ngeen di wax gouvernement de combat. combat ci lan. mais par rapport à la vie chère. ah oui par rapport aux préoccupations des populations. je pense que président Macky Sall amul leneen lu ko intéressé wala lu ko ñor. loo xam ne moom moo war a tax mu teg gouvernement c'est jamono ba loon président de la république Macky Sall di def ay infrastructure parce que vous allez me dire que euh, président Macky def na fi ay infrastructure yu am solo chose boo xam ne on n'est pas nihiliste duñ ko nier mais est-ce que les populations sénégalaises loolu la ñu euh, soxla woon jamono jamono joojule euh, l'agriculture était là l'élevage était là l'emploi des jeunes était là je vous l'ai tout à l'heure mhm. je pense qu'en président Macky Sall di ñëw ñun nag euh, bëriwu ñu njariñ waaye commencé woon nañ jënd saaku ceeb doon nañ jënd tam bonbon de gaz yi mhm. dama ne gaz bu si bonbon bu 6 kilo bi 4000 et quelque la doon jax wala 4000 bi 200 lañ la ci doon wecc. saaku ceeb léegi man dama la ci doon jamono jooju. baal ma rek ma ñëw baril de bi aussi. baal ma rek ma ñëw au aussi dafa amoon benn hausse. baal ma rek ma ñëw loolu aussi il faut le rappeler courant yi di coupé. loolu aussi il faut le rek euh, honorable. Euh, tailleur ma rek bàyyi ma man man ak sama argumentaire rek yow boo paree nga complété xuy xamaj gi. tailleur yi amuñu jàmm <laughs> ñii wal dugub bi amuñu jàmm maanaam jaay jaaykatu cere yi parce que dafay impacté ba ca kay jaay cere sa koñ ba ñi war a lekk cere guddi duñ am problème sama genre gi ak leneen ak leneen saako ceeb di jar vingt deux mille cinq cent au plus ñu ñëw président Macky Sall bi mu ñëwee li mu njëkk def mooy comment faire pour ñu stabiliser prix yooyu noonu mais pare téye ko xam nga mun nga wàññi ba pare quelque temps mu yokkuwaat mais de 2012 à 2019 léegi ma wax la ne jamono jooju aussi euh, prix pétrole bi aussi jaratu doon tax au niveau. déggoo li ma la wax de déggoo li ma la wax de. dama ne man kay maa lay suivre bu baax. quel que soit alpha il a tout fait pour que prix bi fexe ba prix premier denrée première nécessité yépp wàcc ba pare non seulement wàcc ba pare mais def nii. mais certes li benn baat boo xam ne li ngay wax loolu dafa plat ah, dem dem dem ba jàpp boo ma posé question aussi da nga may bàyyi ma ma développé su ma argumenté ba pare ma delloo la parole bi maintenant non da nga ma laaj rek bàyyi ma ma ñëw loolu noonu bi mu ñëwee ba 2019 en fin 2019 covid bi dugg mhm. duggu Chine commencé dugg si adduna bi mais attendez Sénégal mënul nekkul benn pays boo xam ne euh, bàyyi ma rek 2010 Covid dafa jeex. Covid ah. Covid bi dafa jeex. Covid kañ la woon. non ma ne Covid bi. 2020 non non Covid kañ la woon. 2020. voilà Sénégal 2020 la fi dugg. au mois de mars 2020. donc tout année yee passé yëpp. avant 2020 mais prix yi dafa normal la. njàpp demal nga dugg ci boutique. on prix yi dañoo normal loon laa la wax de 2012 à 2020. de 2012 à 2020. amul benn prix boo xam ne egg na tey fi mu egg. maintenant de 2020 à 2022. Covid bi dugg fi entre temps guerre Ukraine bi dugg fi ñu xam ni Sénégal nekkul benn dëkk boo xam ni dafa isolé na la ci àdduna bi moom kese mooy dundal boppam on auto autosuffisant loolu amul dañu nekk di échanger ak ñeneen di def ay importation di def ay exportation kon encore une fois bu fekkee da am ci loo xam ne am na lu dépendre ci ñeneen yi parce que àdduna noonu sax na tëddee suñu borom moo ko wax mm-hmm. nee na nit nit mooy garabam bu ma déggee des fois ñii naan frappe dégage xaw ma France dégage boobu xaw ma lan ak lan alors que ñoom ils ont des nationalités françaises ñeneen ñi am ay nationalités américaines ñeneen ñi nga xam ni bañ nañ ko ba seen lépp bu ñu feebaree sax si biti lañ koy faju jee ay dàll yi ñuy sol amul fii non mais ñun waxuñu ko xam nga nit da xam ni da am na lu baax fee nga dem jëli ko njàpp c'est pas parce que sa rob bii nii dafa rafet ba dama tuddati France lañ ko defaree que doo ko dem jëndi wala Espagne lañ ko defaree wala Italie ndaxte ñoom da ngay bañ enrichir leen su rafetee da nga koy jël nga sañ si ba jekk def ci sa émission ñëpp bekk sa dàll bi bu rafetee dégg naa keroog Bougane Gueye Dany mu toog émission Pape Ngagne Ndiaye di wa waa Ngaye sol ay dàll yoo xam ni au moins dàll bi 800000 lay jar bi gën a ndaw prix bi gën a tuuti ci dàll euh, dàll bi 800000 francs lay jar déggaat naa ko démb tamit mu nekkaat di waxaat ay insinuation yoo xam di insinuer ay affaires yoo xam ne barke salatul fàtte gis nga bu ñu bàyyiwul Sénégal gi ku jug ñu jox la micro c'est vrai nag si tu as ton ton am sa télé am sa ah, rajo am sa turbine xam nga attaqué les journalistes xam nga am sa ci non non man attaqué wu ma en tant que journaliste je l'attaque en tant que politique pas en tant que journaliste fu mu exercer métier journaliste gisootu moo ko deman wala bi mu koy def kon man fàtte naa ko mm. fi ma ko gis mooy en tant que politique muy attaqué nee na il peut supporter tout le monde même su njàpp ñëwoon taxaw ak président Macky Sall di xëccoo même le faux député bi nga xam ni ne yeewi la bokk chaque jour pa bi xam naa ko bëgg a fës la chaque jour si ginnaaw Ousmane Sonko wala ginnaaw xalifa Sall lay toog moom bu dul woon loolu dinañ ko weddi ba pare si affiche ba ñu def fa pa ba nee na même faux député bi bu doon xëccoo ak président Macky Sall moom faux député bi lay wax ce il n'est pas objectif kooku li ko ñor mooy que ni bëgguma telle personne mais telle personne boobu dina leen rey dinañ de ils vont souffrir à le regarder développer ce pays à le regarder émerger ce pays là loolu la yàlla dogal sénégalais yi ñoo ni président Macky Sall am dëkk baa ngi mais ginnaaw suñu borom bi mu dogalee ak pal ci moom gis nga fal loo ko bëgg-bëgg te yàlla bugg ko ci yow dogalu ko ci yow doo ko am moo tax buggaan fi ne nii bureau de vote sax mënu koo jël na ay kaakam ak dëbësam yépp ya amoon Saint-Louis indi ndakaaru tey la waalo gën a aay moom ak keneen ak keneen laa si yamale dama ni nañu may président Macky Sall jàmm ñu am jàmm may ñu ko jàmm duñu am jàmm kii li ko teree nelaw mooy nan lay def ba dund gi wàcc la preuve ba dem xam naa ne fa nga jëm si. d'accord balaa ñëw ñëw euh, si loolu. Euh,